mbokk internet yi nuyu nañ leen dal leen ak jàmm ci revue d'actu bi li ñuy fas yéene waxtaanee bokk na ci Covid 19 ak impact bi mu am ci tàggat yaram fii ci Sénégal nag bañ ko arrêté weerub mars ba léegi jàppale ni jamono gi joxe nañ fa ngir daal di reprendre lii di activité sportive yi waaye am na ay conditions yu ñu teg bu weesoo loolu mercato bi euh, footballeur bi di Samba Diallo moom nag ay club yu nekk ci diwaanu Europe euh, ñoo ngi koy euh, suivre lu bëri ci wàllum làmb jàppale ni CNG daje na ak arbitre Sitor Ndour Ndour jëlaat na postam bi nga xam te moo di président CCA saison bu yees bi ñeel wàllum tàggat yaram jamono gi mën naa daal di démarrer ndax état bu Sénégal daal dinay autorisé ñu daal di reprendre li nga moo di activité sportive yi fii ci biir réew mi mu nekk décision boo xamante nag jël nañ ko démb gannaaw euh, ba ñu amalee benn réunion diggante ministre de l'intérieur di Antoine Félix Diome bu sport di Matar Ba ak itam euh, bu santé di Abdoulaye Diouf Sarr ñoom ñëpp daal nañ d'accord kon ñu daal di euh, reprendre li nga moo di activité sportive yi waaye yi dañ koy daal di amal ci huis clos waaye itam ñu respecté euh, lii di mesure barrière yi nga xamante suñu autorité euh, daal nañ koy teg ensemble fédération itam ñu ngi leen di ñaan euh, ngir ñu daal di taxaw temb ba ñu daal di appliqué yooyu la yoon jàppale ni lu ci mel ni championnat wu football ñu ngi xaar ndorteel bi 2 janvier bi di ñëw weeru mars nag ba léegi lépp lu jëm ci wàllum tàggat yaram dafa daal di taxaw fii ci réewum Sénégal jamono gi am na club yu bëri yoo xam te ñu ngi ci regroupement bi daanaka ñu ngi jongante li nga xam di match pré saison yi 2020 bi moom nag xarañteem daal dinay tax jamono gi club yu bëri nekk ca diwaanu Europe bëgg nañ ko signé boo mooy dina am euh, premier contrat professionnel moom joueur bi nga xam te mi ngi am lu fukki juróom-ñaar nekk milieu de terrain offensif euh, pensionnaire itam ci académie bu Daaru Salaam daanaka li muy wane ci biir équipe nationale u bi tax na jamono gi euh, club yu bëri yu nekk ci diwaanu Europe rawatina fële ca France ñi ngi wax sax ay club yu ci mel ni Lille wala Anderlecht pare nañu ngir signé kon doomi réewu Sénégal bi li gannaaw bañ fi amee ay jafe-jafe yu metti ñu dem sax ba di leen di rajjee jàppale ni relation bi diggante arbitre yeeg CNG jamono gi daal di nay retax ni kee démb kon lañ leen daal di euh, dalal foofu ci arène nationale Sitor Ndour moom moo nekk président li nga xam te moo di CCA nekk donc commission centrale des arbitres ñu daal di koy euh, delloowaat ci post boobu noonu muy xam leen ni kon daal di waxtaan ci ay points yu bëri lu ci mel ni assurance yeeg yenn yenn point jàpp nañ ni ko ni nga xam te mën nañoo am solution ci saa si dinañ ko wut yeneen yi ci des ñu daal di koy bàyyi ba ci kanam mu mel ni kon euh, CNG lañ doon euh, xaar euh, ci kuréel gi le ma ngi cee dox maanaam rassemblé waat li nga xam te moo di famille wu làmb waaye def itam kem kàttanam ba discipline bi di wàllum làmb fii ci Sénégal daal di jëm kanam